kuréel gi lëkkale électricien bâtiment yi nekk Touba Mbàkke ak Daarul Muxti ci am ndaje mu am solo mun doon amal yëkkati nañu ay kàddu kët di jébaane société bi di COCIEL neneen kët kuréel gi di COCIEL ginnaaw ak lëkkaloogum amal diggante moom ak Senelec taxaw nañ temm ngir indi ay gàllankoor ci seenub liggéey waaye dox seen diggante ak client yi Mor Seck di secrétaire général Dia di kuréel gi lëkkale électricien yi moo ci indi ay leeral am benn kuréel boo xam ni euh, dafa ñëw au niveau de Touba pour bëgg samp ci dëkk bi bëgg a dox diggante euh, Sénélec ak clients yi. dafa tudd COSYEL léegi nee na dafay ñëw pour veiller ci sécurité bi ci gàttal nga xamante ni bii dafay euh, joxe certificat de conformité client bi su installé këram ba pare amatul sañ-sañu dem Sénélec dafay dem COSYEL. COSEL yebal benn élément élément boobu ñëw vérifier installation bi su installation bi melee ni mu bëgg mu jox ko certificat de conformité pour mu doog am sañ-sañu dem Senelec pour doog a def demande mais loolu bi ñu ko xoolee dañu gis ne dafa am yu luus yu bari yu nekk ci biir benn bi ci njëkk mooy courant bi nga xamante ne bii moom produire ko di ko joxe donc ba pare fixé ci ay trèfes yoo xamante ne bii dafa seer loolu moo gën a doon problème parce que sécurité bi su fekkee moom rek moo ko taxoon a jóg prix yi nga xamante ni bii teg na ko ci ak ay amende yoo xamante ne bii parce que la problème mooy boo ñëwee fay mu ñëw contrôler la su fekkee melul ni mu bëgg constat d'anomalie la lay jox constat d'anomalie boobu da nga koy fayaat 8000 francs donc bu fekkente ne bii daf la jox rendez-vous rendez-vous boobu mu ñëw gisantewu leen da ngay fayaat donc boo ko tegtalee mu ñëw xamul lieu bi da ngay fayaat loolu moo doon li nga xamante ni bi biñ ko xoolee dañoo xam ne lii kenn mënu ko adapté ci biir askan wi. pourquoi pas ñu bëgg a ñëw pour veiller ci sécurité bi te kenn yëgu ko donc ñun nag lañ bëgg def pignon boo xam ne dañuy jaar ci ñun pour dem ci askan wi loolu la ñuy lànk ba tëdd ci naaj. neneen kat kuréel gi di ko COCIEL mun ko bàyyi. mu samp ay reenam ci Sénégal rawatina fii ci diwaanu Mbàkke dina indi ay gàllankoor yu bëri bëri ci seenam liggéey waaye itam dina lor askan wi. ba mën leen a jural ñàkkum courant. raisonnable électricien bi su liggéeyee ba pare mooy ñëw def demande ci ñoom ñetti question lañ lay posé installation bi ndax am na coffret am na terre am na différentiel kooku jërul ngay dagg liggéeyu nit ci nañu andil benn poy benn poy ñu ñu ñu ñu sañoo ko wala benn poy nga rempli ko wala client bi ñëw wax ko ñetti question yooyu jar na bu doon ndakaaru nga dem bu dee fongu la mi nga dem ba pare rendez-vous bi aussi fu man di nekk da ngay dagg sa liggéey dem loolu kenn mënu mooy courant dina jafe te problème bi mooy bépp nit bu dëkk Sénégal am am nga droit am courant parce que loi bi moo la ko jox te ñoom ni nga niñ bëgg nga installé ko soo ko mënul doo am courant parce que tey ki yor benn néeg wala ki yor ñaari néeg norme installation bi ñu bëgg mu def ko su ko mënul doo am courant te normalement normalement installation ay type de classe la war a doon mënoo ñëw ci nit ki ne ko ni borom immeuble bi di installé moom la borom pantre bi di installé. buñ sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci kuréel gi neneen kat tàppale yi bi ko kosiyal naree dañoo yoxoosu dugg fii ci diwaan bi loolu tax na nag ñoom yëkkati nañu seen i jéego dem jébaane leen ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye di ñaax bu baax a baax képp koo xam ne ni électricien nga nekk fii ci Touba wala biir Sénégal nga nekk ca la nga nekkoon te taxaw temm jàmmarloo ak Kosiyal. en même temps ñoom bi ñu dëkkee bëgg a dugg ci biir fii nga xamante ni bii mooy Touba dañoo ñëw yoxoosu ndànk rek bëgg a toog parce que ñun ñii di wax ak yow ñoo ko yëgal autorité yi. ñoo dem Mbàkke ku fa nekk autorité ñoo la ko yëgal kilifa diine yi ñoo leen ko yëgal. mooy électricien yi lañu la ñu doon def buñ ko sensé buñ ko sensé électricien bu installé bâtiment wan ko ginnaaw dem sa yoon client bi soxla courant na dem Senelec ba Senelec ne la duñ la jox courant. loolu la ñuy xaar mais bu benn électricien ñëw envoyé nañu ay fiches fiches yooyu fiche de engagement lañ ko tuddee sa numéro téléphone sa numéro carte d'identité nga ciy def donc envoyé leen ko pour ñu ñëw na dañ lay former wax nañ ko sànq ki lay former ban niveau la am ngay former ba niveau la am loolu lépp luñ war a mën a xam la ñëw rek nit ki liggéey 30 ans nga ne dama koy former ki koy ci ñaari fan ñu wax nga ne tuddee duma ko formation renforcement des capacités laa ko tuddee. donc loolu mooy arnaqueur loolu munuñ ko nangu tey munuñ ko nangu ëllëg. ñii di électriciens yi nekk ci diwaanu Bawol ñoom kat ne nañu xeex bi dañ koy door a tàmbali fas nañ ko yéenee wéyal jéebaane nag ñii di ko siyal ginnaaw lëkkaloo goo xam ne nii ñu ngi leen koy tuumaal ñu lëkkaloo ko ak Senelec indi ay gàllankoor ci seenam liggéey. mooy reeteet yuuxu ko ba ñëpp dégg ko mooy fii ñu toll électriciens yëpp xam ko bi ci des nag suñu point de vue la parce que ñoom xam nañ ay nit lañ. te liñ def togg nañ ko ay ati at donc ñu ngi ak équipe technique ak experts yi du gëstu ci dossier bi loola nag buñ ci tollee dana siiw comme ni lii siiwee loolu mooy stratégie bi. ndaje mu am solo mi nga xam ne ni nag électriciens yi doon nañ ko amal fii ci Touba. benn la ci jéego yi nga xam ne nii ñoom ñi naan nañ ko ngir fas yéene wéyal seen xeex mbooleem Sénégal. ba kuréel gi nga xam ne moo di ko seel ci ay tuuma yoo xam ne ni teg nañ ko ko mu ànd ak seen lekk dinañ taxaw temm dinañ taxaw temm ba seen bëgg-bëgg yi ak seen tàppale yi nga xam ne ni teguñu ko fenn ci yoon ñu dakkal ko nu mu gën a gaawee